tay dañuy woté moy conseil syndical national moy instance bu gëna mak pour buy ci congrès pour dajalé suñu responsable yépp à travers le territoire national ñu ñëw fi ñu tassé pour waxtané ci situation Senelec pour waxtané ci situation syndicale ak tamit pour tamit ñu am ay essentiel si nous sommes demee élection des délégués personnels personnel le 7 décembre et en même temps pour l'élection de représentativité Sénégal le 12 décembre 2023 nous avons une forte délégation bu ça conduite par suñu camarade secrétaire général Eliman Eliman Diouf. Euh, en tout cas jafé jafé mom damay né tambalina parce que tay lepp lu ñu si tay Sénélec amna na lu planification yi defoon ni presque benn doxul xam ngeen bu ngeen dégg stratégie gaz tout mooy dañuy yaakaar gaz bi day ñëw c'est loolu lu am la mais kañ lay ñëw gis nañu chaque fois état bi moom waroon leeral jël ay mesures yenn yu taxaw ne gaz bi su ne weer bii la ñëw at bi kooku mu respecté ko ñëpp gis nañu si semaine bi rek ministre ñoom génn nañu pour ne gaz même GTA bi nee nañ tamit dañ koy repousser benen bu gëna doy waar mom moy moy yaakar teranga kooku mom pour consommation locale gis nañu tay fofu lañ gëna tité parce que Senelec yëpp installation yëpp ak projet yu muy am à court et à moyen terme yëpp ci gaz bobu la gis nañu tay report bu ñuy def parce que dañuy changer sa partenaire BP dem na les Cosmos mom mo ñëw wa Petrosen yokku léegi même Cosmos énergie day wutaat par exemple nan lay amee beneen partenaire mooy dara leeragul yàlla rek a xam kañ la ñëw diggante boobu lan lay def c'est suñu projet yëpp si gaz la donc loolu nag day indi nag ay inquiétude si Senelec tey yéen ñëpp gis ngeen population bi ñoo ngi joytu mooy courant bu cher courant wax dëgg yàlla cher na ñun si population bi lay bokk c'est ñoo ngi koy vraiment di ñoo ngi ànd di méttitlu ak ak population bi état bi puisque tey nangul génne na subvention bi tey munul ñëw bañ a subventionné waat mënut a ne parce que soo amoon sax gaz bi day ñëw ñu ne lu ñuy mu lu yàgg mais tey état bi tey lépp lu mu mën a def day subventionné parce que su ko deful fu ñu jëm vraiment dina metti ñun nag syndicat lañu rôle alerte ak veille mooy dañu ne ah lu nar a ñëw mais doo xaar ba mu ñëw ba pare nga génn su boobaa ñu dañu fayal ñu dañ fi nekkal mooy certes am na travailleur sénégalais nekkal fi société bi mais ñu njëkk a nekkal mooy mooy askan bi lañ fi nekkal parce que Senelec société nationale la. laaj na nag état bi nag jël ses responsabilités mooy projet yooyu mu am nga xam moom moo si am baat bu mu mujj mu fexe ba date bu mu wax bi mu respecté ko mooy gaz bi nu mu gën a fexee teel a ñëw mu ñëw su ñëwul ñoo ngi yëgal population bi affaire dina gën a métti c'est du baax pour nag gestion tey Senelec tey lenn rek lañ am lu ñuy regretter mooy ñun dañuy ñaan toujours ku nekk si kër gi nee fi mais gis nañu directeur bopp bu ñu fal mais lu jiitu mooy côté politique su la nommé si politique di nga def activité politique c'est loolu tey moo ngi ñuy gaañ bu baax a baax directeur kenn du ne xamul Senelec biir Senelec la ingénieur bu mucc ay la mais si doxalinam léegi politique bi mu ëpp loxo tey lu muy def nomination yi mooy ay ñu ko jege ñu muy àndal c'est loolu yorul société nañ yemale ñëpp. ñëw ñëpp suñu def promotion nañ ko def si mérite ak compétence ñun de en tout cas sur le thème dañuy taxaw thème bu direction bu fi jaar yëpp lu muy def na ko teg si yoon moy mu daan am une bonne gestion parce que Sénélec askan bi moko mom heure bu gestion bi baxul day répercuter directement si économie réew bi benen bi moy tamit war nañ am sañ-sañ ñu protéger Sénélec suñ gisee directeur bu tambal def lu nonu, ñu jog ne fi du fi amé ñun en tout cas tay dañu jël suñu responsabilité moy étudier problème yépp yu am suñ fi génn dinañ def ben bataaxal mu tuddu résolution moy finale moy loolu yépp dinañ def considération ci point yépp suñu paree ñun yan recommandation lay def yaakaar naa état bi moom it dina ci gis lan la war a def loolu incha allah dina doon contribution sa yaakaar naa dina jëriñ askan bi jëriñ réewu Sénégal jëriñ travailleur Sénélec jëriñ ñëpp